waa demandé presse par rapport à l'organisation parce que aussi le foot féminin euh, xëy na ay at ci ginnaaw kenn dégg ko tey lan moo nekkoon tey le déclique par rapport tey ak euh, la sélection mais aussi ak euh, li nga xam moom mooy le travail que vous avez eu à ak Mame Moussa Cissé pour que ces filles reviennent aussi au premier plan. le travail boo xoolee comme comme ni ko waxee. le football féminin il y a dix ans il y a cinq ans même derrière. c'était euh, c'était c'était n'importe quoi pour le pas entre guillemets mais aujourd'hui euh, boo xoolee suñu football féminin tu te rends compte que vraiment il y a eu euh, une politique fédérale qui qui qui a cru au football féminin donc qui a fait aujourd'hui que euh, le Sénégal fait partie des des top pour ne pas dire des top 10 africains euh, vu les résultats les performances de la Coupe d'Afrique déjà passée au Maroc où on a joué les quarts de finale et, aussi en Coupe du Monde. Donc les filles étaient, étaient en Nouvelle-Zélande pour, euh, pour la Coupe du Monde, les barrages. Malheureusement, elles ne sont pas qualifiées. Donc pour dire qu'il y a une politique vraiment de la fédération qui a fait qu'aujourd'hui, euh, toutes les filles sont, sont dévouées à la tâche parce que bon, même de, la petite catégorie aujourd'hui, le Sénégal, en petite catégorie, on a une équipe aussi qui, est, peut répondre favorablement euh, et qui peut défendre ses couleurs jusqu'à fin parce que Euh, en U20, on a, il a fallu de peu pour ne pas se qualifier en Coupe du Monde. Au cinquième tour, l'équipe féminine s'est éliminée en, en, au cinquième tour contre le Nigeria. Donc pour vous dire que le football féminin est en plein essor ici au Sénégal. Alors pour cette organisation, pour euh, lever un peu une petite euh, euh, clarifier un petit peu, le match retour contre Mozambique ici, c'est que les Mozambicains nous ont écrit pour demander est-ce qu'on pouvait jouer le match ndax mun nañu jongante match retour bi fii ñoom Mozambique dañuy bind pour laaj ñu est-ce que mun nañu jouer match bi fii Sénégal dans la mesure où le match match aller bi ak match retour bi dafa jege tellement que voyage en Afrique xam nga dafa metti mhm. donc bu ñu jouer le 22 war a jouer le 25 euh, en Mozambique dafay compliqué trop non seulement pour ñoom mais pour ñun aussi ñun peut-être peut-être sax xaw nañ tane parce que ñun day jël nañu ay devant déjà pour bu ñu joué tak ñu jël suñu avion dem peut-être sax ñuy njëkk leen yegg Mozambique mais aussi on a vu que loolu daf ñu arrangé mm-hmm. parce que bu ñu joué fii tamit non seulement en effort dañuy économisé wu tuuti mm-hmm. mais aussi en dépense aussi mm-hmm. donc ce qui fait que on les reçoit ici même si on a en charge jël nañu en charge yëpp seen seen hébergement seen tout transport ici ñun ñu ñoo ko jël en charge mais loolu moo ñu gënal donc day sax boo xoolee match aller bi métti na trop parce que defoon nañu 1 mhm. retour bi bu ñu defoon 0-0 Sénégal éliminé alors euh, yàlla def match aller bi retour bi ñu gagné ko 2-1 donc euh, loolu nag dafa nekk avantage suñu parce que bu ñu joué tam bu ñu naroon voyager dem si ñoom peut-être sax tey ji parce que boo xoolee. Mhm. Cameroun sax dañ ko éliminé. mooy c'est pour vous dire que aussi son mhm. sont en difficulté. donc ñëpp am euh, tey jii en en féminin vraiment les équipes sont en avance quoi.